baax a baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak saahibatul fadilatu sëriñ Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacké sëriñ Mountakha Mbacké xalifatul muridiya suñ borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér wala mun naa lépp yéene koo lëggéel sëriñ Touba suñ borom defal ko ci lu kawe njortam di yëkkati nuyoo ak siyaar Euh, di jot li nuyoo ak siyaar ci turu alhaaji sëriñ Mbacke géey xalifa sëriñ Mabi Gueye mi nga xam ne mooy jëwriñu daari xuddoos jëwriñu seexi daari xuddoos yëpp ñu yëkkati nuyoo ak cant ci turam waaye ñu yëkkati nuyoo ak cant ci sëriñ Amsatou Gueye mi nga xam ne mooy wayjuru sëriñ Moustapha di buntam ci sëriñ Touba niki noonu nuy jot lu nuyoo ak siyaar ci sëriñ Mara Guèye moom xalaaji sëriñ Mbacke Guèye mi nga xam ne moo jiite mbooleem sëti sëriñ Mara bi Guèye yëpp ñu ngi leen di jot lu nuyoo ak siyaaram ak mbooleem njabootu sëriñ Mara bi waaye ak mbooleem njabootu alxaaji sëriñ Mbacke Guèye niki noonu di yëkkati nuyoo ak siyaar ci kilifaak gi nga xam ne moo fi toogal buntu kër sëriñ Mara bi di sëriñ Mabé Guèye moom sëriñ Amsatou Guèye jëwriñ ñoo ngi koy seer bu baax a baax niki noonu di yëkkati ay kàddu ci ndigalul sëriñ Moustapha Guèye moom sëriñ satu Guèye di yëkkati nuyoo yi ak cant ak siyaar yëpp di ko jagleel njabootu seexul xadim gi nga xam ni ñoo fi teew di ci jiital sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Mbacké soxna Lo tem teew fi ci teewaayu ak ci ndigalul sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér bali mu naal yéene koo lëggéeyal Cheikh Moustapha yéene koo lëggéeyal sëriñ Mbacke Mohamed way juróoma mu yeggalee ko nam ko soobe niki noonu di yëkkati nuyoo ak siyaar di jot li suñuy nuyoo ak siyaar ci sëriñ Cheikhul Khadim Mbacke moom sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad moom it mi ngi toog ci jataay bi ñu koy ñaanal suñ borom yàggal ko fi te ànd ko wér bali mu naan lépp yéene koo liggéeyal maamam suñ borom yeggale ko nam ko bëggee mu mel ni dañuy jëkkati ak waxtu wi di nuyu mbooleem koo xam ne rek teew nga ci jataay bi tey di leen xamal ne sëriñ bi mbégteem yaatu na lool am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te na ngeen xam ne jëf jii ngeen def muy mu woote ngeen wuy si ko defal ngeen ko mbooleem njabootu sëriñ Mabye Guèye gépp dale ko ci alxaaji sëriñ Mbàkke mi xalifa sëriñ maa bi kon sëriñ Moustapha xolam sedd na xelam dal na yaakaaram dooleeku na ndax woote ñu wuy si la dafa jafe lool ndax mën nañu luye ay sees mën a luy ay baas mën a luye lu ne waaye doomu aadama yi moom boo wootee ñu jëkk seen tànk wuy si la loola sa ko rek moo la ko may kon sëriñ Moustapha jaarama gàcc nga kon ñu tënk kàddu yi rek ci li nga xam ne moo waral bis bi bis bi di bisu Serigne Touba waaye di bisu Serigne Mabi Guèye jàmbaari Serigne Touba ja waaye di bisu Serigne Mor suba Jaam mi nga xam ne moo jur way jur Serigne Sowa mi doonoon jàmbaar lool moom itamit mu mel ni buñ tuddee Serigne Mabi danañ tudd Serigne Mabi ak alxuraan ndax euh, ku ne xam na ne Serigne Mabi euh, lu jiitu sëriñ bi di taxawal tariixa muridismu naka jekk ci diine lislaam ak alxuraan ak la nga xamante ni bii mooy lu baax te jullit. akub taalibe di ca sax loolee rek naka jekk ca la dekkoon ba yàlla suñ borom dogal seexul xaddim mii nga xam ne mooy suñu yaakaar teeg ëllëg te lu waaye am la sëñ tubaa ko am la sëñ am moo ko gën fuuf moo bàyyi la mu yoroon lépp gàddaay fekki sëriñ tubaa jolof sëriñ tubaa tibbal ko takkal ko ndombaak tànk fa ko takkale góor yàlla yépp waaye sëriñ maa bi moomee nag nekkat koo xam ne yëngum ak dalam gépp ci alxuraan ak jaamu yàlla ak lëggéeyal sëriñ tubaa rek ci la loole it bokk na ci fonk alxuraanam yeggoon na ci dëkk bi nga xamante ne bii fa la ganee jamono ñu di ko wax tawa tawa googee tur wa la ko waral mooy tawakkaltu ilallah moom lañ tudde woon dëkk boobee dëkk boobee seen ak fonk alxuraan yeggoon ci defoon nañ ñaari armel yoo xam ne ñi nga xam ne ay kaan fori lañ wattu alxuraan mokkal ko ñu di leen beral seen armel yi bopp yoo xam ne fa lañ leen daan denc am ci it yeneen armeel yu ñu fa def yoo xam ne képp koo xam ne sax sàggante yegg na ci mbokkalu alxuraan wattuwoo ko wattuwoo fànni xam-xam yi nga xam ne mooy tënk ponk islaam ñu ber la nag ca armeel ya nga xam ne fa la denc jigéen ñi ak góor ñi loolee nag la ko waraloon mooy positif ak bëgg ak fonk gum fonk alxuraan ak mañ ko doyadal alxuraan wala ku ko ku ko ku ko delloo ginnaaw loolee moo doonoon pas-pasam ab soññ la woon rek ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom la dëkkaloon loolee moo waraloon ñaari barab yooyu am fa ba man fa sax daqaar yoo xam ne ñetti daqaar yu daj yoo xam ne barab boobee falade sama waajur sëriñ am sotu wax na ma ne sëriñ maa bi waxal na ko ne ko digg bëccëg saa boo fa jaaree da ngay dégg jinne yi di jàng alxuraanu karim kon ngàcc ka sëriñ maa bi alxuraan mooy seen ndono alxuraan lañ bëgg mooy sunu yëngu mooy sunu dal boo demee ngàcc loolee moo fi am boo ñëwee fii fi Touba daara yi nga xam ne ñoo soqikoo ci buntu kër sëriñ maa bi bari na fi bari koo xam ne foo ko takk na ko bis bu yàlla sàkk ay kaamil alxuraan yu bari la ñuy wàcce ci daara yi di ko jagleel addee Serigne ak di ñaaral réew mi suñu borom def ci jàmm loolee moo doonoon yëngub Serigne maa bi akuk daram kon seex Cheikh Moustapha su fekkee ne way juróom jël na ko di Serigne am soto di Serignam andi féetale ko Touba gi ca féetale ga ma ko fi féetaleen ba mu fiy ñëw mu doonoon jamono bu jafe jamono bu métti jamono bu tar mu ne fi di muñ la ko way juróom santoon mu ne ca la mu war a nekk mu nekk ca di ko def ba tey jii lii lépp fekk ko fi defe naa ne ku nekkal yàlla yàlla suñu borom nekkal la kon sëriñ Moustapha ci loolu la nekkan ba tey ji loolu am kon nag duñ ma sant suñu maam ya waaye sant suñu wayjur yi nga xam ne dañoo toqal ci alxuraan teyit alxuraan doon loo xam ne moo gën lépp xayrakum man taxalul quran waxal la moowu kon ñu xam ne alxuraan mooy cosaanu ngàcc alxuraan mooy suñu lépp kon sëriñ Moustapha loolu ci la nekk mu mel ni nag am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngiy jànge ci daara ji alxuraanu karim bari ci ñoo xam ne wattu nañ alxuraan ba tey jii ñu war di yëkkati ay kaddu ak ay neexal jébbal leen ko waaye nag yëkkati ay ay ay ay ay kaddu ak i cant ci dongo yi nga xam ne mokkal nañ ci alxuraan di ñaan yàlla suñ borom barkeel leen te seen alxuraan yi suñu borom barkeel ko am na it ay kaamil alxuraan yoo xam ne war nañ ko fee jébbale kaamil alxuraan yooyu Serigne Khadim Gueye di taaw Serigne Moustapha bind na kaamil alxuraan war koo jébbal Serigne Mabé Gueye moom Serigne Amsatou Gueye Serigne Mabé Gueye moom Serigne Amsatou moo koy jox kadoom waaw am na it yeneen yeneen kaddu yoo xam ne war nañ ko fay jàllale kon ñu tënk kaddu yi foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, ci biir loolu nag su ko ma tàmbali kaddu yi wax nañ ma itam naa yëgle ni Mouride Info teew na fi sëriñ Mbacke mais moo ko jiite waar wi TV ñoom teew nañ fi ñoom soxna maam jaar Seck ña nga ne ñoo ko jiite Sénévision teew na fi Arona Cissé. ak Moussa Diop Arouna Cissé moo ko jiite ànd ak Moussa Lamp Fall FM Serigne Mor mi ngi nii moo leen fi teewal moom it ñu leen di sant bu baax di leen gërëm Serigne Amsatou Gueye Serigne Mabey Gueye mooy waajuram mi nga xam ni mooy taaw alaaji Amsatou Gueye kado euh, bi nga xam ni moom lañ koy jox Serigne Babacar Touré bu RTS moom moo koy jox kon sëñ Babacar bismillah waaw kay sëriñ Amsatou Gueye kado baa ngi noonu sëñ Amsatou ñëwal sëriñ Mabéye mii mooy waajuram ñu duppee ko nag maamam sëriñ Amsatou Gueye yal na fi yàgg te wér Seexul Xaddim ah, yal na yàgg at bi atub alxuraan la keroog bi sëñ Moustapha di sanc si ambaar rek la fi def tey daara ji jur na ay daara daw demee am na lum ci xam waaw moom la sëñ Touba wax ni waaw sëriñ Mara nee indi na fi kaamil ba tey neena na dong yi ci jàng alxuraan alxuraan moom yi ngeen mokkal moom la sëriñ tuuba daa teg ci kaw lal di ko sotti gët ak sikki naa ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa qabla waaw waaw yow karim yaay sama xarit yaay sama soppe yaay sama docteur itam waaw sëriñ Mara kon bisimilah moo tax mu ni ko huwa sifa min kulli daa moom alquranul karim nee na mooy faj jàngoro yëpp sëñ Mara jox na ko kado bi alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ Modou Samb moo koy jox kaddu bi. Modou Mbaye sëñ Modou. waaw kay sëñ Sadda waaw Samb mii di joxe kaddu bi sëriñ Moustapha nee mbaar meeg basang yi ak yeneen xeeti teraanga yu bari da koy jël di ko indi ci daara ji ca alxuraan rek tax ak jëmi sëñ Touba ah yow day sëñ Touba nga liggéeyal ndax moo ni. malakanil quraan wal ulum kado bi ci topp sëriñ Pape Diop sëriñ Mor Ngiraan sëriñ Mor Ngiraan moom sëriñ Bay Ngiraan moom njaareem moo koy jox kado bi waaw Serigne Mor Guiraat mii Serigne Moustapha nee na daa def lu rëy ndax nee na yoonu Gabon wi bi mu wàccee Gabon ñi ko doon jël si ak sëriñ Serigne ngiraan mii nee na daa ubbi néegub Serigne Moutala ba ni ko duggal ni ko ndax nitug yàlla lañ ciy teral nitug alxuraan lañ ciy teral te nitug yàlla nga nitug alxuraan nga Serigne Mor Guiraat jërëjëf moom Baye Mbaye Guiraat. bay bay ngi naan moom jaareem daara ji bi ko sëñ Moustapha di sanc mook sëñ Birahima mi rek la woon képp sëñ Birahima ay takk ndigam di yalwaani bu yalwaanee ba ñëwit mooy dugg ci àll bi mooy wuti gi tax mooy taxani tey taxan mi courant la yalwaan mi ay saako ceeb la ak i tufe barke borom Touba alxuraan rek a mat a waaw kado euh, baa ngi doonu joxe na ko sëñ Birahima Guèye jërëjëf Guèye yàlla taxawaay bi yàgg sëriñ Mabéye kaamilu alxuraan la bind moom lay jébbale su jébbalee kaamil ba noppi nag sëriñ Mabéye daal di yëkkati kado jox ko cey alxuraanul karim kitaabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin ah dama cee sama xol da cee sedd wallaay nee na da cee bëgg xolam sedd ci tax du nu toog. moo tax nee du nu toog. nu dinu ko jox. nu dinu ko jox. dañuy taxaw. dañuy taxaw. ba mbooloo mépp xam ni. nee na ba mbooloo mépp xam ni. li mu bëggoon ci njaboot gi. li mu bëggoon ci njaboot gi. suñ borom defal na ko borom defal na ko. Serigne Moustapha mii defal na ko. nee Serigne Moustapha mii defal na ko. rek laa bëggoon ci ñoom. nee na lii rek la bëggoon ci ñoom. kee ñu njëkk a nee na kenn ñu njëkk jox kado bi. mooy sëñ Amsatu nee na mooy sëñ Amsatu ab taawam la mu jox ko sëriñ Moustapha mu jàng al alxuraan ba noppi kii gane jamono man mi maa ko tuddee nee na moo ko tuddee xaadim rasul mu jàng alxuraan mu jàng alxuraan nee na mokkal ba noppi bind ab kaamil teg ko ci loxo kon nee na loolu daa sedd xolam nee na moo tax mu jóg taxaw ba ñëpp xam ne bég na jërëjëf jërëjëf wallahi aaruna tey lii la am nga loo boo demee tey lii la tey lii la boo demee ca fi mu toll nii àdduna bi yëpp ñi ngi seetaan màggal gi sëñ bay sàppar sàppar ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ku yokk nag xam nga ko barki dem wax nga ko bàyyi seex umum sëñ fàllu nee nga ko mboqaat ma ba ma mboqee daaw aw ma woon kër te am naa kër tabax naa ko toxu naa ca mboqaat ma jërëjëf sàppar jërëjëf yëkkati suñu nuyoo ci kàddu ak kàddu teefu Serigne Moustapha Gueye ñu jaar ci jëwriñu ñu jëwriñu kër Serigne Malick ñu Serigne Amsatou mu bàyyi ko ci kilifa yu mag yi Serigne Amsatou kanaa gi nañu may dégloo Serigne Amsatou ak kanaa gi Serigne Mbacke bi ak Serigne Cheikh ak mboolem sëti Serigne yëpp muy kàddu yoo xam ne kàddu yu gàtt la ndax ku ne xam ne tey jii ne bis bi wóote naa bi bis bi daa am ndax ku ne xam ne dañ ko daal yem doo fanaane ko den nag tolluwaayu jamono nga xew ci jamono te ñëpp xam ko moo waral bis bi nii mu demee tey Serigne Moustapha ci ndigalul kilifaam yi comme niñ ko waxee rek tolluwaayu jamono ji ak xew-xewi jamono ji nga xam ne umput kenn moo waral bis bi deme nii tey kon ku ne xam na ne bis bi xat na ndax sëriñ bi yitteem mooy bu ñu jullee timis lu ca topp rek jànkat yi àggali seenu liggéey ñu ñaan waaye dafa fekk ne lu baax jafe-jafe jamono ak naqari jamono waruta tax ñu bàyyi ko bu jamono jafee wala mu naqari la daa def ci lu baax dañ ko war a yokk dolli ko ngir yàlla mi ñu moom moom jamono mu neexalaat jamono loolu laan ndigal ci kilifa yi moo tax kon dafa mel ni ren du cérémonie lañuy def waaye comme dongo yi dañoo yëkkati seen i addee jébbule ko mooy alxuraan ju tedd gi ñu jox leen taraanga yi mbokki taalibe yi teewee ko kilifa yu tedd yi teew ci jataay bi dana yell te baax sëriñ bi yëkkati kàddu yi cant gàtt jëmale ko ci ñi fi teew ñëpp waaye rawatina kilifa yi kàddu yooyu nag ñu ngi ciy jiital sëriñ Seexu Xadim Mbàkke moom sëriñ si Seex Abdu Lahat Mbàkke nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi ñoo ngi ko ci jiital ndax kenn ku nekk xam na diggam ak sëriñ Moussa Ba sëriñ a Xaddim di nit koo xam ne yàlla suñ borom mi nga xam ne mooy seet ku ko soob mu tollal la na ko soob yàlla la soob mu def ko mu rëy ndax koo xam ne ñaari nit képp ñoo di diggante sëriñ Touba soo bëgg na tuuti sax mënoo tuuti waaye rëyam googu ak màggam googu ak darajaam jooju woyofal na ci boppam gisu ko jëmmi sëriñ Touba ji rek la gis ba tax ku taalibe sëriñ Touba yi nekk ku meen seeni jataay meen nga fa jataayu Seexul Xadiim nii diggam ak sëriñ Moustapha kenn umpule wu ko nii mu def ci jataay bi pencum sëriñ Mabé ma dee di ngàcc noonu lañ ko miinee buntu kër bu ne bu ñëwee dafay dugg lu fa xew ndax ku ne xam na ne kër sëriñ Mabé buñ nee lu fa xew mooy xew-xew diine la rek waaye lu fa xew bu fa teewee lu toog te lu tàyyi fépp fu ab taalibe nekk dina dox ko tànkam ba fekk ko fa lépp lu buntu kër bi yëngule Serigne Cheikhul Khadim ma nga ca jamono bu ne daara ji loxoom jubbu ci ci biir ak ci biti te loolu lépp diggam ak Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy buntam ci buntu kër maa Mabé moo ko waral Serigne bi Serigne Moustapha wax ne mi ngi lay seedeelu cant di la ñaanal yàlla suñu borom mu defal la itam tawféex ak gudd fan ak biir di cant nag ak ngërëm bu baax Serigne Saliou mi nga xam ne jataay bi ab jataay ma ndax ku ne xam na ne kër gi kër Serigne Moustapha Mohamed la sëriñ Saalihu mi bokk ak sëriñ Moustapha lépp di loxoom di jooram di loxoob càmmoñam moom kër gi moom njabootu kër gi yilif lépp lu fi nekk ñoo ngi bu baax tey dalal sëñ Mamour Mbacke mooy sëñ Mouhamadou Moustapha Fall ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex sëriñ Saliou la sëriñ bi wax ne ñu ngi koy gën sant bu baax ndax kër gi këram a njaboot bi njabootama waaye itam xam na ko te jàpp na ko ndax jamono bu nekk rek loxoom ak wërsëgam ak xelaatam ak ñaanam lépp dara ci jugut ci jotaay jamono bu nekk lépp lu buntu kër bi yëngule moom yi yëmalewu ko ci fii wala ngàcc wala fu njabootu suñ naa bee nekk waaye loo xew ci buntu kër bi fa man nekk rek sëriñ Saliou mi moo koy taxaw ci ndigalul magam ja muy sëriñ Moustapha Mohamed te fu mu fi teew dana fa taxaw taxawaay boo xam ne bu fa Cheikh Moustapha Mohamed teewani bu ca weesu noonu kon loolu sëriñ bi wax ne ñu ngi la ciy sant di la ñaanal yàlla defal la taw tawfeex ndax wéttali nga ko wéttali mbooleem sëti sëriñ bi di la ñaanal ñaanu taalibe tam barkeb Serigne Touba yàlla dolli la gudd fan bu ànd ak wér di sant ak gërëm itam boo leen sëti Serigne Mabé yi nga xam ne teew nañ fi yëpp bàyyiwuñu kenn nga xam ne yëf yi seen yëf la bis bi seen bis la di sant boo bokki dëkkandoo yi di sant bokki taalibe yi di sant dongo yi ci daara bi ak soxna yi ñëpp bàyyiwuñu kenn di sant itam boo leen jàngkate xasaay bi bàyyiwuñu kenn ñëpp bàyyiwuñu kenn kenn ku ci nekk xam nga sa bi kër Serigne Moustapha di sant itam mboolem jànkati alquran yi nga xam ne ba ñu xëyee ca suba lañ fi ñëw def fi li nga xam ne mooy dëgg-dëgg cosaanul gis bi mooy alquran ndax am na ku ko wax léegi ne Serigne Touba nee na bustaan yi kitaabullaahi Serigne Touba nee na sama tool nee na mooy téereb yàlla kenn si kitaabu wa hadis wa hadas laa jam ho fiddatun wala jam ho sahar Serigne Touba léppam alquran la kon bu dëkk bi dee dëkkub alquran nga xam ne Serigne Touba wax na ne bu fekkan ne am na cat catam mooy ñàkk dëkk Touba di ci jàngale alxuraan noonu la ko waxe kon bu fekkee dëkk bi dëkkub alxuraan la daara ji di daaray alxuraan bis bi di bisub alxuraan suñ dee sant ñu taxawu ci bis bi ñu ci war a jiital mooy jànkate alxuraan Serigne bi wax na ñi di sant ñi di sant mboolem jànkate xasida yi di sant dëkkandoo yi nga xam ne bis bi saa bu jubal see ñoo ciy ëpp si ñu saa yitte ak i taxawaay di sant itam mbooleen presse bi dañuy bañ a tudd waaye bàyyiwunu kenn seen taxawaay ci seen digg ak Sëriñ Moustapha seen digg ak buntu kër bi xam nañ ko wax nañ ne ñu ngi ci kilifa yi ak ñu fi teew ñu ñaanal ko yàlla doon li ko dëgëral si sépp ak baatin bi ba li mu yéenee liggéeyal maanaam ko ne mu ko soobee sëriñ bi wax ne ñuy tënk foofu kàddu yi ndax jotaay bi du jotaayu waxtaan waaw sëñ Maam Mor maa ngi koy présenté léegi moom sëñ Maam Mor moom ko xam sëñ Moustapha xam nga ko muy jëmm joo xam ne nit ku baax la ku laa biir soo ko séenee rek bañam ngay njëkk a séen waaw muy kilifa bu oyof boo xam ne wax dëgg si yàlla jege na taalibe Sëñ Tuubaa yëpp di gëm si sinu safa fukki at yi topp na taab ànd bu weesoo fukki at ak yàqante bëgg a wees te kilifa la ndax Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Fallou moom Serigne Touba mooy way juróom Serigne bi ñu ngi lay dalal di ñaan yàlla defal la taw tawféex di ñaan jataay bi ñu te yàgg ko teewe bu baax a baax di siyaare Serigne Moussa sëñ Moussa di ku baax koo xam ne moom sunu wëllëre la yàgg nañ lool ñu xam ko muy ku bëgg sëñ Touba koo xam ne fu mu teelu rek liggéeyal sëñ Touba la fay def ñun miin nañ ko lool wax dëgg sàll ñu koy ñaanal yàlla defal ko taw feex ak ñi fi teew ñëpp kon sëriñ di wax ne ñu wéyal jàngum xasaay bi bu kilifa yi ñaanee fas yéene balaa guddi rek ñu ñëwi mbool am incha allah axiru da'waana am alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Moustapha Fadilou ñëw Cheikhul Khadim jox ko toogu bi toog ci suuf ngir sëñ Touba lii mooy yoonu murit lii mooy ab taalibe kon kenn ku ci nekk mën na cee roy tey ca yoonu murit rek nag ci la amee xaadim bu wax na ko léegi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sëñ Bamba Ndiaye jànkatu xasida di nuy sëñ Taala mais nga xam ni moo nu dalal ci bis bi daan nu yóbbu këram di nu jox añ akum njar lépp ñu ngi koy ziar kon na ñëpp maase tàllal seeni loxo te wax amit sëñ Modou Ayda Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi fi. jox Bamba Dior waaw kay nee na bu nu ñaanee Serigne Bamba Dior mooy jàng tàllal leen te wax amin ah waaw Cheikh Mbaye Sikurula agsi na ñu koy nuyu amin yaa rabbal na ñëpp tàllal te wax amin amin yaa rabbal alamin amin amin moom Serigne Saliou